jërë ngeen jëf mbokki euh, internet yi gannaaw ba ñu leen nuyoo ñu ngi leen di euh, jaajëfal yéen ñu ñuy teewloo ci seen bi di Nar Actu dal leen ak euh, jàmm kaddu yi maître Khoureychi Ba yu mu dal di yëkkati moom maître Khoureychi Ba mile kàddoom yooyu la nag dal day amuk réeroo gannaaw ba nga xamee ne nag dal dina yëkkati ay kaddu dal di xam ne ne rek kii di président Ousmane Sonko dal dinañu koy éliminer mënatut bokk ci yële élection ca noonu nag mu maître Ciré Clédor daal di jël kaddu gi xam ne ne donte mbetteel daal dina amit kii di président Ousmane Sonko dara mënu koo tee bokk ci ay élection lu ni mel nag moom maître Ciré Clédor daal di koy xamle ne rek kii di président Ousmane Sonko moom dara mënu koo tee bokk ci yile élection ca nag moom Habib Sy daal di jël kaddu daal di xamle ne rek moom président Ousmane Sonko dana bokk ci yile élection te ba tey moom président Ousmane Sonko mooy seen candidat di kaddu ya nga xam ne nag moom la Habib Sy daal yëkkati moom Habib Sy moomee nag ci fàttali candidat la ci élection présidentielle yi nga xam ne nag moom lañ daal dëgg dëgmal gannaaw ba ñu saytoo ci wàllum parrainage am ba xamal ko ne ko lépp gongo moom mii nag daal dina dëggalaat ne kii di président Ousmane Sonko ba tey mooy seen candidat.